yitte ju rëy rëy ju kawe yoo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala daf cee soññee ngir jullit ñi mën a góorgóorlu ci néegi borom bi tabaaraka wa taala beneen xadiis yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee ne man bana lillahi masjidan yuskara fihi bana allahu lahu baytan fil janna koo xam ne danga taxawe taxawee ci jàkkay yàlla yi nga def ci ay jéego tabax ko ñu fay tudd borom bi tabaaraka wa taala nee na dana la tabaxal ci àjjana ab dëkkuwaay kon jumaa ak jàkka dafa am yitte ju tax mu ñëw ci kaw suuf mooy jullit ñi man di fa jooxe ay waxtu waaye man di fa defe ay mbir yu am solo yoo xam ne islam daf ko yittewoo warees na taxaw jullit ñi nga xam ne seeni xol benn wut loolu ci warteefu jàkka la te ña fa nekk ñuy taxawee loolu warees naa jooxe takk ay sëy ci biir jàkka yi ak jumaa yi wares naa gaaral lépp loo xam ne lislaam daf koo yittewoo ci jumaa yi ak ci jàkka yi mooy seen warugar ci jullit ñi ngir ñu taxawe loolu kon loolu warteefu jullit ñi la ñu mën a sàmmonteeg li nga xam ne mooy li leen borom bi tabaraka wa taala sant ci juma ak jàkk yonente bi alayhi salaatu wasalaam digle ne ñu sàmmonteeg jàkka digle na ko waaye def na ci ay jéego yitam yu am solo ndax xam ngeen ne taxawal na jàkka mook sahabatul kiram ridwanullahi taala alayhim ajmain borom bi tabaraka wa taala jël jàkka jagleel ko boppam ne mooy néeg yi gën a kawe mooy néegi yàlla yi gën a kawe ci kaw suuf maanaam képp kuy làmb yàlla ta bëgg koo daj la gën a gaaw mooy nga di ko làmbe ci barabi yàlla yooyu mooy jàkka yi wa anna al lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada manam jàkk liko borom bi tabaaraku taala mom motax yàlla rek mom mom lañ fa wara wone mom lañ fa wara wote woote itam ndax jage jagleeg suñu borom tabaaraku taala la kon lor bokku na ci li nga xamne ne warees na ko xel bu ba motax baax moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam yittewoo jullit ñi ñuy joxe seeni waxtu ci jumaaya daari wax ne man raha ila al masjidi al jamaa fa xutwatun tamu wa xutwatun taktubu law xasana saahiban wa rajia yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne koo xam ne danga ngaa gonte jëm ca jullikaay ba jégg ak nodd nga dem ta jumaa ja wala ca jàkka ja dem julli ci gont ngir sàkku jullik mbooloo nee ne ku ko def suñu borom tabaraka wa taala dana la faral say bakkaar dana la faral say bakkaar ci jéego boo xam ne da ko koo jéego jëm ca jullikaay ba wa xutwatun taktubu lahu xasana te itam jéego boo jéego suñu borom tabaraka wa taala daf la koy bindal li nga xam ne moo di aw yiw saahiban wa rajaa booy dem ak booy dikk lépp nekk aw yiw ci jéego boo xam ne jéego nga ko jëm ca jullikaay ba loolu ci mbaaxu borom bi tabaraka wa taala ngir sonne jullit ñi ñu mën a góorgóorlu ci jàkka yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee ne xanaa duma leen tegtal yéen jullit ñi loo xam ne day far ay bakkaar loo xam ne day far ay bakaar du leen ko tegtal ala adullukum ala ma yamhu llahu bihi lxataaya xanaa du ma leen tektal loo xam ne bu ngeen ko defee seeni bakkaar ma ne sippeeku wa yarfau darajaat seeni daraja di gën a yëkkatiku yonente bi alayhi salatu wasalaam bi waxee loolu sahaaba yi dañoo gaaw a njëkkante ngir bëgg a xam loolu lu mu doon ñu ko xaalu balaa ya ya rasulullah ana loolu lan la yow yonente bi yàlla bi mu ne leen isbaaxul wuduyi ala al makaarih dee leen góorgóorlu di matal seeni njàpp dee leen góorgóorlu di matal seeni njàpp ci waxtu tàng ak waxtu sedd ci waxtu woo xam ne yaa ngi wér ak waxtu wi nga xam ne da ngaa jagare nit ki mën naa am gàllankoor ci boppam waaye na góorgóorlu ba jotal li nga xam ne moo di ak njàppam sonn ca lool ba njàppam mën a yéwén moo tax mu ne isbaaxul wuduyi ala al makaarih mooy moo nangoo sonn ci njàppam te bañ koo yàkkamti loolu day bokk ci yi nga xam ne day far ay bakkaar waaye day yëkkati itam ay daraja wa kasratul xatwa ila ay jéego ci jullikaay ba loolu bokk na ci yi nga xam ne day far ay bakkaar waaye day yëkkati ay daraja koo xam ne daa baaxoo baagante diggante këram ak jàkka ja wala jumaa ja loolu bokk na ci liggéey bu gën a rëy rëy rëy yàlla bu gën a ci kaw suuf mooy di jéego di jëm ca jàkka ja ndax loolu day far ay bakkaar waaye bokk na ca mu ne ko wa inta wa intisaaru salaati baada salaa maanaam saa yoo xamee ne julli nga maanaam ci misaal nga julli tisbaar toog di xaar takkusaan ci jamono jooju nga nekk di xaar takkusaan loolu lépp suñu borom dala koy bindal aw yiw loolu dala suñu borom dala koy bindal aw yiw ba keroog ngay jógee ca jullikaay ba wala nga tojal dem di yees sa jiwaat waaye fekk yaa ngi toog yiw wa dala fay fekk te malaaka am na beneen riwaaya bu wax ne malaaka itam dañ lay jégalul yàlla loolu bi ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee dañ ne ko fa saali fa daan fa saalikum ribaat loolu mooy ak takku ak takku dëgg mooy koo xam ne mi ngi jotal ak njàppoom waaye mi ngi góorgóorlu yéegoo jëm ca jàkka ja nee na loolu mooy ak takku dëgg da koo wax ñetti yoon sax fa saalikum ribaat fa saalikum ribaat kon loolu itam ak soññee la ci nit ci mën a bàyyi xel digganteem ak boromam tabaraka wa taala ci mën a jooxe yi nga xam ne mooy néegi yàlla yi beneen riwaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee ne saa yu ngeen gisee genn góor góor goo xam ne mi ngi yittewoo lool ci diggante këram ak jàkka ja saa yu ko gisee mu di ko def maanaam di dégg ak nodd di bàyyi këram di dem di julli ji di ko baagant saa yu ngeen gisee nit di ko def yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee ne kooku kat fashhadu lahu bil iman seedeel leen ne kooku kat ku gëm yàlla la gëm gu dëgër ida raaytum rajulu yafaadu masajid fashhadu lahu bil iman bu ngeen gisee koo xam ne mi ngi ne diggante këram ak jàkka ja loolu nee na ku ko def na la wóor ne kooku kat nañ ko seede li nga xam ne moo di ak gëm yàlla gu mat sëkk kon loolu itam bokk na ci li nga xam ne warees na ko bàyyi xel baax a baax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee ne saa nit ki nekkee ci ak julli maanaam dugg ci jàkka ji toog di xaar ak julli ci diggante bi muy xaar julli gi wala mu julli ba noppi wala muy waaje julli nee na loolu kat aw yiw du dañ ci moom maanaam jamono ju nekk ñu ngi koy bindal aw yiw malaaka yi ñu ngi koy jéggul yàlla naan ko allahuma ixfir lahu allahuma irhamhu ma lam yuqim min musalla aw yahdus aw yahdis maanaam feeg mi ngi toog foofu di xaaru julli na yëg ne malaaka yi ñu ngi koy ñaanal njéggalal yàlla ñu ngi koy ñaanal njéggalal yàlla lu rut daa déplacé wu jóg dem mu génn ca jàkka ja wala tojal dem di yeeslu juwaat waaye feeg mi ngi toog rek suñu borom tabaraka wa taala mi ngi koy bindal aw yiw waaye mi ngi koy booleeg ay malaayika ñu koy njéggalul yàlla te njéggalul borom bi tabaraka wa taala jàm bu nekk yaa ngi koy ci sa dund koo xam ne itam yaa ngi nekk ci biir liggéey jumaa ji maa bisa góorgóorlu maanaam lépp loo xam ne jumaa daf ko soxla moo xam bu dee kuy noddu la liggéey gënu koo féete kaw ci kaw suuf ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ëllëg yowmal xiyaam ñi nga xam ne dañ daan noddu ëllëg yowmal xiyaam suñu borom tabaraka wa taala dana leen yëkkatil seeni baat ci biir aljanna dana leen yëkkatal seeni baat ñooy gën a kawe ay baat ci biir aljanna loolu bokk na ci kon koo xam ne dangay liggéey ci jumaa wala ngay liggéey ci jàkka moo xam dangay ngay moo xam da ngay laabire nit ñi moo xam da ngay jàppale nit ñi ak bépp liggéey boo xam ne liggéeyu yu jàkka la wala jumaa suñu borom tabaaraka wa taala daf la koy fay wala ngay xool lépp loo xam ne am na sikk ci biir jàkka ji nga di ko saafara moo xam lu ñuy toog di jullee la moo xam ay lënt la moo xam ay làmp la moo xam yu bare bare bare yoo xam ne jàkk daf koy soxlawoo loolu dafay bokkut ci ñi nga xam ne mooy rijalun la tulihim tijara wala bayu an zikrillah moo ñooñu nga xam ne dara du leen yittewoo lu dul ñu fee ba baatu yàlla bi ñu mën di ko joxe di ko yëkkati ci jàkka yi ak jumaa yi kon liggéey liggéey bu rey la bokk na ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee ne koo xam ne da nga góorgóorlu ci sa dund ba benn waxtu nga jullee ko ci jàkka benn waxtu nga jullee ko ci jàkka nee na kooku suñ borom tabaaraka wa taala dana ko ci bindal yiwu réeréeréy réy woo xam ne kenn xamul nu mu toll ñu xam ne julli nag daa bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg ci kaw suuf te suñu borom tabaaraka wa taala nee ne inna salaata tanha anil fahsaa'i wal munkar maanaam julli daa bokk ci li nga xam ne bu ko jaam bi dee def ci anam bi ko ko borom bi tabaaraka wa taala santaane nee dana dem ba ñaaw ak lu bon dana ko sori lool ngir xolam ba ak ragal yàlla ak mbaax moo cay tàbbi moo tax borom bi tabaraka wa taala daan soññi nit ñi naan waa qiimu salaa waa qiimu salaa dee leen taxawal julli yéen julleen ñi kon juma bu fekkee dañ ko defar ba noppi taal lamp ya rafetal ko ba mu jekk xool ko taxut ñu du ko def am na mag mu baax mu ko waxoon ci dëkk bi ne de juma day su fekkee dañ koo defar ba mu baax ba mu taaru taal lamp ya mébali ko ba mu baax xool ko taxut waaye dañ faa war a jaamoo borom bi tabaraka wa taala sëriñ Mouhamed Mbacke moo waxoon wax ju mel noonu kon loolu bokk na ci yooyu ñu di ko bàyyi xel moo tax borom bi tabaraka wa taala di jooxeloo julli ñi ngir ñu mën a sàmmonteeg jullig mbooloo mu ne julli moomu ci boppam wa innaha la kabiratu ila ala alxaashin maanaam lu réeréy la lu màgg loo xam ne ku régulul yàlla dëgg-dëgg ak ragal doo ko def kon jaamu yàlla ci waxtu yi rawatina waxtu sedd wala waxtu tàngoor wala waxtu noor wala waxtu nawet yooyu daa nekk ay jaamu yàlla yoo xam ne ngir jullit man ko saxoo takkoo ko ak néegu borom bi tabaaraka wa taala day doon loo xam ne lu jafe la moo tax suñ borom ne kon lu màgg la lu dul ku ragal yàlla moo ko mën a joxe moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wan nañu ne mu sàmmonte woon ak jullit mbooloo waaye wan nañu itam ni nga xam ne noonu la ci yare woon sahabatul kiram ridwanullahi taala alayhim ajmain moo tax suñu borom ne xad aflaha al muminuun xad aflaha al muminuun jullit ñi day am nañ ak texe waaye feeg ñu ngi taxoog nag ay jaamu yàlla yoo xam ne yàlla dañ ko sant moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci mbaaxam dañoo jàngal ñun jullit ñi ni ñuy jullee ñi ni ñuy jullee dañu ko jàngal dañoo tere ñuy julli di gestu moom yonente bi alayhi salaatu dañoo tere ñuy julli di gestu loo xam ne bokkut ci ak julli waaye daf ñoo tere ñuy julli di bari ay yëngutu di julli di bari ay yëngutu lu dul aajo loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ñu ko daf ñu ko tere daf ñoo tere itam ñuy julli di bañ a jël sunu xol bi di ko aj ci biir julli gi maanaam képp koo xam ne yaa ngi taxawal di jaamu borom bi tabaraka wa taala na ngay bàyyi xel digganteeg sa borom tabaraka wa taala ngir sàmmonteeg ne yaa ngi déeyaale ak sa borom kon bé julli ku ca taxaw war nga sàmmonteeg ne yaa ngi janoog sa borom tabaraka wa taala nga nocc sa lépp lu ci àdduna waaye jëmee ko ci àlaxira noonu la ko cheikhul xadim radiyallahu anhu waxee bu ñu delloo ci démb xool yonante bi alayhi salaatu wasalaam xool saxaaba yi niñ daan jullee maymun ab tëgg la woon daf daan tëgg waaye bu daan dóor ba digg ak noddu dafay sànni li muy tëggee ngir dem mën a jooxe ji julli googu nga xam ne moom lañu ñu wootee bokk na ci li nga xam ne yonante bi alayhi salaatu wasalaam nee ne képp koo xam ne yaa ngi sàmmoon sàmmonteeg julli mbooloo dinaa la defal ci aw yiw lu toll ak ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar yoo xam ne da ko am su fekkee yow ngaa julli yow dong kon loolu warteefu jullit ñi la ñu mën a sàmmoon sàmmanteeg moom bu baax a baax ñu xam ne jumaa nag daa bari émission lool yu muy yu muy def jumaa julli ga mooy warteef bi gën a rëy ndax moom moom lañu fay woote ndax ay ala salaah moom la ñuy wax hayya ala falaah moom la ñuy wax ginnaaw dañ fay woote ak julli ak texe kon jaamu yàlla googu mooy la fa jiitu waaye nag lépp loo xam day doxal day doxal quartier ba wala day doxal dëkk ba te lépp méngoo ak wàllu lislaam loolu lorteefu loru jàkka la ak jumaa yi ngir ñu war di ko bàyyi xel ginnaaw bu ñu ko defaree ba noppi di fa jooxe war nañ fay defar takk ay sëy war nañ fay fexe ba jubbanti ay nit ñoo xam ne dañoo dëngu ay dëngu yàgg war nañu fexe ba jullit ñi mën a ànd mën a bennoo loolu lépp dafa nekk mission boo xam ne l'islam moo yaatale noonu ci liggéeyu jàkk ak jumaa ñu tànn nag farme ay nit itam ñoo jàngalaat leen ñi nga xam ne noonu la ñu noddee noddu gu wér loolu dafa nekk tamit rôle boo xam ne ñiy jàngale warees na cee bàyyi xel di leen jàngal ni ñuy nodde noddu gu sell ndax noddu xaw naam am nuru lu yomb waaye nag lu xaw a jafe la ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax jàngal leen li xam gu wér loolu itam loolu jumaa la ñiy jiite itam ñu jàngal leen ni ñuy jiitee nañu war a taree ak la la ca aju lépp rukoo ak sabba yi ak la ca war a aju lépp mu dikk loolu day nekk loo xam ne rôle ñiy jàngale la ñoom seen warteef la lépp day bokk ci rek dundal jàkka ak juma te ku dundal jàkka ak juma rek suñu borom tabaraka wa taala daf lay fay innama yaamuru masajid allahi man amana billahi wal yawmil axir képp koo xam ne da ngaa dundal jàkka wala juma rek ku gëm yàlla mooy kooku te borom bi tabaraka wa taala dana ko fay kon ñu xam ne jàkka mi ngi noonu juma mi ngi noonu suñ ñun jullit ñi ñooy suñu warteef moo ñu joxe ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah